dal leen jàmm ci Touba Mbella TV TV abonné nga daal di bës tous cloche notification bi rek lépp yemb auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina moolana muhammadin il makin bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare yéen ñëpp leen balaq te di leen balwaq di leen fàtte loo xam ne xam naa ne fàttewu leen ko muy màggalu Tuubaa Mbeela ñu war koo def le cinq février lañ ko war a def ca Tuubaa Mbeela di leen xamal ne niñ ko daa waxee dañu bëgg ñëpp ñëw teewee si ko kenn ku ne nga bàyyi la nga jàppoon ak loo sori sori ñëw fekkee si bis boobu ndax seen bis la boo xam ne bi bokk leen ko kenn yéen ñi taalibe yi bokk ci kër gi ah, taalibe yeneen yi ci des itam bokk sëriñ Touba ñoom itam ñi ngi ci ñi ngi leen ci woo ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn bëgguñ ñëw fekke ko teewe ko lañ fay def ñu bokk ko lu ci ay ngëneel ak i xeewal suñu borom boole nu ko loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg loolu nag niñ ko daa defee xam ngeen ko mooy bis bi ñu woote yéen ñëpp ngeen fanaan si fa baa ngeen ñëw fa ci suba teel gi fekke luñ fii def lépp ba mu àgg feeg yeewuñ leen ngeen bañ a dem mooy ñi xam ne nekk ci région yëpp bu waaye mën a nekk ñu la cey woo surtout ñu nekk ndakaaru ñu ngi leen di woo ñoom itam ñu ñëw dañ daa ñëwee te fonk bis boobu te xam ne bis la boo xam ne sëriñ Mahmoudan da ko fonkoon lool itteem jépp doonoon ko mu bëgg bu koy def kenn ku ne ñëw fekk si ko fa ndax daf daa wax ne Touba dañ ñun ñëpp a ko bokk waaye Touba Mbella nag maa ko moom ku ñëw fekk ma fa mu wóor ma ne mu wóor la ne mu wóor ma ne man moo la tax a jóg kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi ci booy itam kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Birkilane ak région wu Kaffrine di ci jiital mboolem foofu taalibe nekk ñu ñëw fekke si jataay boobu muy màggal googu ah, ñeneen ña ca di autorité administrative yi ñu ngi leen ciy woo ñoom ñëpp préfet bu Birkilane sous préfet Kër Mbouki ak euh, gouverneur la région de Kaffrine ak mboolem responsable politique yi fa nekk Ablaye saydu Sow ñu ngi ko fa ñu ngi ko ciy woo di woo Ablaye wilaan di woo mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci département yi nekk Koungheul ku mel ne Mayacine Camara ñu ngi koy woo moom itam. ak ñëpp bàyyiwunu kenn di woo itam euh, docteur Sarr di woo euh, Makhtar Dia day def ku lim da ngay juum waaye bàyyiwunu kenn bàyyiwunu ñenn bàyyiwunu fenn ñëpp lañu bëgg ñu bàyyi lu ñu jàppoon ñëw fekke si bis boobu di woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir mooy opposition ak ñu dul opposition ñëpp lañu invité waaye yu ñu kenn di ko yëgal ñëpp ah, Aliou Sow moom ñu ngi ko koy yëgal ah, leen xamal ne bis la boo xam ne sunu bisa képp ku ci jàpp ku ne noonu nga jàppale képp ku ko fekke si ku nekk da nga làq ngërëmul moo Mahmoudan waaye da nga làq sunu ngërëm da nga làq ngërëmul njaboot gépp kon lii la lii ñi laa bëggoon ñu yëgal leen ko gannaaw bu loolu wee itam lañ fa bëgg moy li tax bis be jóg rek moy jàng alxuraan jàng xasiida def ay istighfar jàng di jéggalul sunu kilifa yi nga xamne ño fi nekkon di serigne Mahmoudan te mu donon ku fonk l'islam ku fonk jàkka ku fonk juma te ku pësteefu ci limay def mu bëgg nu ñep nu mel nonu te roy ci mom mu nekk suñu référence loolu lu nu bëgg la fa tabarakallahu ndax gis nañu ne moo nu mat référence moom rek ah, kon nag ñu lu ci loolu bu baax a baax mooy ndari luum itam maa ngi koy woo dama dama ko waroon fàtte te xam naa ko mari ndari luum suñu xarit la suñu wëllëre la nañ ñëw moom itam incha allah hmm, bàyyiwunu kenn bàyyiwunu ñenn bàyyiwunu fenn ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax date bi nak moy le 5 février 2022 ñu bëgg yeen ñëpp ngeen ñëw fa di yemoo ak samedi ngeen ñëw fekk ci bës bobu sunu mbékté lay doon no ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal leen jamm ci Touba Mbella TV ak Touba Mbella TV abonné wul nga daal di bës tous cloche notification bi rek lepp yëmb